amin internet chers téléspectateurs yéen dañu safo dañu seetaan ci Leral TV comme ça su ne nuñ koy defee tey nag ñu ngi fii ci marché Diff'Once bi nga xamante ne daanaka fii la nekk ci Rebeuss waaye itam ñu gën koo xàmmee ñu gën koo ràññee ci artisan yi fi ne waaye itam ci ay ñi nga xamante ne daanaka ñooy defar inde yi ñooy defar lii di cin ñooy defar lii di kuddu yi waaye tey dañuy xool ana lan mooy seen jafe-jafe dugg xuus ak ñoom xool seen liggéey bi lan moo ci dox ak lan moo ci doxul ñu dugg léegi taataaxlu seen i kàddu liggéey bi day ñu ngi góorgóorlu daal ci weñ yi bu baax ñu ngi góorgóorlu ci fourneau yi kawdéer yi ak bunt yi ak fenêtre yi ak yeneen liggéey soudéeru oto yi yeneen yi nga xam ci yëpp ñu ngi ñu koy indi ñu mën ko liggéey ñu koy liggéey jàpp suñu liggéey ñu ngi ci liggéey di ci suturlu di ci daan suñu doole di ci yor suñu njaboot. waaw ñëpp mun ñoo am cuisinière wala mun ñëpp mun ñu def ay cuisinière parce que am na ñoo xam si ci fourne gaz yi ñuy defar nii ci la ñuy toggee ñii ci marmite yi ñuy toggee ñii këriñ la ñuy toggee parce que toggu këriñ du fi jóg toggu këriñ ak mat cosaan la fi aad la du fi jóg jamais ilaa yow mi diini du jóg fii gis nga li fiy wàcc ci këriñ ak matt ci yooyu yëpp yi ñu koy liggéeyee ñun ñoo koy te am na cuisinière yoo xam si même état yi nga xam si dañ koy soxla sax ñun ñoo koy defar ñu koy teg ci cuisinière yi marmite waaw marmite yi bi prix bi yéeg na parce que matière bi day luy taxaw kilo ceeb bu daan jar juróom-ñaari dërëm tey dem na ba 250 ba 500 francs ba 1000 francs amul dara luy taxaw ci jamono rek day dox ah état bi bu bëgg bu ñu bëggee jàppale dana jàppale parce que mën na recenser kenn ku ci nekk fi nga nekk mën na la recenser mën na la recenser lu mu bëgg a jëflanteeg yow lu lay jox mën na la koo jox lu mu la bëgg a wax mën na la koo wax état am na ay matuwaay am na lépp bëggee jàppale ouvrier yi na leen jàppale mais jafe-jafe moom du ñàkk àllaakulu xaal lépp loo gis liggéey rek am na jafe jafe moom en tant que yaa ngi ci àdduna moom jafe-jafe dafay am même liggéey boo mën a doon dana am jafe mais nag liggéey boobu boo ko muñee rek ay gàllankoor day day jeex quoi après waa utilis li leen ni leen li ni cin yi moom mënu fee jóg ndax euh, tubaab bi ci boppam cadre buy soor ay 40 kilos 50 kilos moom du ko liggéey ay marmette lay defar yu de kilo yu 3 kilo yu de kilos donc donc yooyu mënul defar cérémonie cérémonie yi nga xam ne yi mën yi ak màggal yi ak ngénte yi ak réception yi yooyu cadre tubaab yi duñ ko liggéey ñun ñoo koy liggéey cadre buy toog 30 kilos 40 kilos 50 kilos tubaab bi du ko liggéey waaw man fii def naa fii depuis 91 ba léegi maa ngi fi depuis ay 2000 depuis 2000 ba léegi waa waaw ay cin non cin moom kenn du ko peintir aluminium kenn du ko peintir waaw fourneau yi la ñuy peintir maanaam weñu màgget yi la ñuy jël di ko peintir di ko defaraat daal ba mu baax. waaw dox na kay parce que ñun ñu ñuy liggéey moom daanaka moo gën a baax sax bu tubaab bi nit ñi kay ñoo taamu bu tubaab bi rek mais ñun li ñuy liggéey daanaka moo gën a baax moo gën a dëgër ndax ñun dinañ ko liggéey liggéey ko ba mu jaar yoon defar ko ba mu mel ni bu tubaab bi quoi prix prix moom dafa wàcc kay xanaa kay. waaw parce que bu bu ñu fayoon lu ñu war a fay dëgg-dëgg moom dina paase lu ñu koy jaayee. anam bi ñu koy defar ça dépend ci lu ñu sémb rek ça dépend lu ñu war a defar rek bu dee benn wala ñaar rek yooyu mën naa bañ a yàgg mais bu dee ay trois ay 4 ay cinq mën na dire quoi ay cinq jours 4 jours. si jours yooyu daanaka. waaw jafe-jafe moom mooy affaire yu ñàkk des fois moom day taxaw quoi benn place des fois day taxaw du dox. waaw mais yenn saa moom lu mel ni ay période tabaski wala ay feet comme ay décembre yi nii day dox moom. ah mooy ñun moom bu ñu amee lu gën lii rek ñu def ko parce que tamit xam nga ñun daanaka ñun ci mbedd lañ toog di liggéey quoi. mais mën nañ dem nag bu ñu. bu dee bërëb bu baax daal moom baax na si ñun ndaxte fii tam ville la quoi. ville bi mooy gën a dox yeneen côté waa waaw tout le temps dañuy ñëw bëgguñu fi jële mais xam nga fi moom gars yi dañuy daan seen doole rek waaw loolu moo tax quoi. métal bi aluminium lay nekk ay kilaas wala boîte mécanicien yi moteur boo xamante ni dafa dem bu kuule kilaas yi ak piston yi dañ koy récupérer jaay ñu ko soo demee si fi ñuy defaree soleil. kayit yi am na ay papier yi fi ñuy defaree papier rek métal arme nag ma nga fa foo yooyu dañ ñu koy jox ñu togg ko ba mu ñor xelli ko kuule ko dina am këriñ ndax baa ngi fi ñu teg ko ci forcé ko mool ban la mool bi ban la am kees cin boo gis dafa am modèle 30 kilo cinquante kilo 40 kilo noonu lañ koy liggéey suñ ko móolee togg ndox mi armiñon ba mu ñor ñu kuule ko non prix bi moom fa mu nekkoon des fois dina yéeg sans dépend parce que indien yi si jamonoy Ablaye Wade baaxoon na mais Macky Sall bi mu duggee dafa jox jël chinois yi jox leen ferraille bi affaire bi yéeg ñun fi dool dañuy démerder rek cuisinière bu mu ci paat am na bëgguleer yoo xamante ni ñun ñoo defar bëgguleer cuisinière day yàqu nga indi ñu modèle bi ñu defaral la ko ba mu mel ne bu mais xat-xat rek amuñu place ñu nekk du place Rems avenue Sénégal xaw ma rue de Rems kër kër fii dafa xat tëgg yi xam nga fii ouvrier yi dafa complété soudeur rëng fi yaa ngi dégg fondeur rëng fi yaa ngi dégg ferraille rëng ay sergent lu ne leen fii defar soo taxawee fii léegi nga gis ñuy libéré ay sergents yoo xamante ni yaa ngi gis kay. amul lu ma lay wax moom. amiin toog chers mu nekkoon ay kàddu yu am solo yu ñuy fa jëlee waaye itam bi ñu fi ñëwee gis nañ ñoom na la ñuy euh, toggee li nga xamante ne daanaka mooy fer bi naka lañ koy defee muy cin naka lañ koy defee lii di inde naka lañ koy defee lii di euh, kuddu waaye itam ñu xam ne itam ñoom seen liggéey yombul ay jàmbaar lañ ñuy ñaan rek état bi dimbali leen ci bu baax a baax ci ay lieux yi nga xamante ne ndaxte fii ñu ñoo ko ñëpp gisandoo xam nañ ni fii moom yoon la itam centre ville la ñu ngi ñaan itam nguur gi jàppale leen ba ñu am fi nga xamante ne ab bërëb ñoom ñëpp ñu daje fa ndax ñu mën a def seen liggéey bu am solo mu nekkoon ay kàddu yu ñu fi jëlee.